man mii ma yëkkati suma téléphone daal di woo suma doomu ndey Guy Marius Sagna ndokkale ko d'abord ci taxawaayam ñaanal ko euh, yàlla euh, gën ko kattanal gën ko dëgëral pour mu mën a continuer di xeexal néew doole yi ak di jàppale ñu nga xam ne tamit seen loxo jotul seen ginnaaw te loolu wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla fay xolam yàlla fay ko taxawaayam ak yàlla fay ko yeneem bu ci des nag mooy man yàlla moo dogal ma nekk maire ci benn gox fii biir nag Ndakaaru ma am lu ndaw lu ma xam ci mbiru suuf moo tax ba ma gisee loolu ma ne lii mënuma toog di ko setaan parce que am na lu nga xam ne nii nopp mën na ko dégg xel mën na ko nangu wala wante tamit am na lu ngeen xam ne wax dëgg yàlla kooku man kenn duma gëm loo ne ni que Sénégal tey am na fii ay nit yu am sañ-sañ yi def yenn yi mooy jóg jël soixante-dix-neuf famille dàqaleen seen kër yi te amul lenn loo ci teg ci ndàmpaay mënul nekk kooku waa domaine ñu ngi may dégg euh, autorité déconcentrée moo xam ay sous-préfet ay préfet ay gouverneur ñu ngi may dégg Sénégal bii ndakaaru bii su ñuy déguerpi sax ay mécanicien dama ne ay mécanicien su ñu leen dafa am fu ñu di yóbbu asamaa nag ñu nga xam ne ñu ngi fii depuis 40 ans jur fa seen ay doom investir seen seen seen xaalis tabax fa ay kër ñooñu kenn amul droit toog leen seetaan teg ci nag lu tubaab di wooyee droit de préemption mooy daanaka xaw ma nu ma koy tënkee ci wolof wante daanaka balaa ñuy balaa ñuy xalaat Masamba wala Mademba yow mii dañ lay jox sa wàccuwaay ci gàttal moo tax lii bu mu amee man dama daal di woo ay xarit ay mbokk ñu nga xam ne ni seen xam-xam màcc na ci mbiru suuf ma laaj leen seen xalaat ci lii ñu daal di ma jox seen xalaat jox ma ay document ba may gëstu document yi nag ba ma ñëwee tey waxtaan avec le mouvement FRAPP waxtaan avec le collectif des impactés de euh, de Wakam terme sud ma ne leen su xalaat bu gàtt mën naa jum wante suma xalaat bu gàtt euh, jumte moo fi am réeroo moo fi am te je pense que mën nañu waxtaan ba juboo waxtaan ba juboo boobu mooy lan mooy bu ci njëkk mooy waxtaan d'abord ak ku yàlla dogal moom mooy jiite tey lii des armées sénégalaises mooy chef d'état-major général des forces armées mooy le général Birame Diop ñaan ko ci yarak ak ci jàmm ak salaam mu gestu njabootam parce que ñii moom ak ñoom bërki démb la woon mooy lu tubaab di woy de frères d'armes moom tey général Birame Diop tey ci guddi moom ak njabootam dinañ fanaan ci kër taal ay lampe taal ay climatiseur yor frigidaire yor lépp kon nag nañu gestu tamit ñu nga xam ne ñoom ak moom ak ñoom la woon démb ñu doon xeexal Sénégal di xeex ngir intégrité du territoire national moom il a une responsabilité noor na gestu xool nu muy dimbalee ces soixante-dix-neuf familles pour en attendant ñu mën a am une issue heureuse ñooñu am fu ñuy fu ñuy nekk ci loolu man en tant que maire de la commune de Mermoz sacré que proposé na collectif bi ñu ñëw ci Sacré-Cœur 1 ñu jox leen lu ñuy woy le centre socio-culturel de Sacré-Cœur 1 courant ngi fa ndox ngi fa dëgg la nag du kër centre socio-culturel la wante moo gën mbedd ci tegu nag mooy interpeller njiitu réew mi di président Macky Sall moom mooy chef suprême des armées mu xam ne ni que bii tamit njabootam la bu ci tegu tamit su ko yëgulee ñu yëgal ko ko ne ni que amoon na déjà benn protocole d'accord ci protocole d'accord boobu Comico daanaka lu mu namm ci assiette foncière boobu loolu yëpp tënk nañ ko ci protocole d'accord boobu yëgal tamit président Macky Sall ci protocole d'accord boobu lépp lu nga xam ne ni waa domaine daanaka ci CCOD boobu yoon meñ nañ ci sañ-sañ luñ ci namm tënk nañ ko tamit ci protocole boobu wante ci protocole boobu tey victime yooyu yëguñu ko woon moo tax ma ne dafa amoon réeroo soixante-dix-neuf famille bu ci nekk ci protocole d'accord boobu jox nañ la ci benn parcelle de deux cent mètres carrés bugguma sori ci wax ji nag parce que daanaka fii Sénégal gaañ yi su ñuy waxee su waxu suuf rek dañuy dañuy dañuy daal di soppeeku wante suma baat ci kaw su ko président Macky Sall yëgulee ma yëgal ko fii président Macky Sall ci protocole d'accord bii nii bind nañ fii coopérative des habitants de Terme Sud soixante-dix-neuf parcelles soixante-dix-neuf parcelles yooyu nag lañu bëgg a président Macky Sall dimbali ñu ba ñu ngeen xam ne ni suuf moo leen tere nelaw ñu bañ ko saax saaxe parce que loolu mooy wax ci bu ci tegu nag président Macky Sall comme ci dëkk bi la dëkk tamit yëg nañ ay jéego yu ngeen xam ne ni mu ngi koy dox bu xool nu muy dimbalee soixante-dix-neuf yooyu wante dañu bëgg a yëgal président Macky Sall que ñu fa la ñu fa la ñu dëkk seen doom yi fa la ñu judd bugguñu dem feneen fa la ñu bëgg a des kon il suffit seulement de réactualiser ce protocole d'accord ñooñu nag ñoom tey ñu bëri ci ñoom ay retraité lañu ñeneen ñi ce son des veuves seen jëkkër yi génn nañu àdduna ñeneen ñi ce son des orphelins kon ñoom seen loxo jotul seen ginnaaw te ku ci nekk ci ñoom soo demee ba doon retraité mënoo dugg ci banque ba banque lebal la xaalis kon ñu ngi ñaax ci jàmm ak salaam ci yar ak teggin président Macky Sall ak tamit ci yaakaar mu joxe ay instructions caisse de dépôt et de consignation famille bu nekk ñu tabaxal la kër comme tey lu caisse de dépôt et de consignation di tabaxee kër ay Bambilor Bambilor caisse de dépôt et de consignation mi ngi tabax kër ci ay 15 millions daanaka suuf ak kër mooy jar 15 millions daanaka fii suuf si moom teggeeku na leen ba pare kon lu des mooy tabax kër kër nag caisse de dépôt et de consignation du banque rôle du liggéey di wuti xaalis wala di liggéey ay intérêt c'est comme le di son nom c'est une caisse qui reçoit des dépôts et des consignations kon tey ñoom mën nañ tabax foofu ay kër pour ces soixante dix neuf familles à ces soixante dix neuf familles de pouvoir payer des mensualités comme à l'époque de la SICAP ou des HLM. pour bañ a guddal daal loolu moo nekkoon tey su ma tànk yi di leen di masowuwaat parce que wax dëgg yàlla lii metti na lool di leen di gërëm yéen yéen de la presse di leen di sant parce que vous avez accepté d'être aux côté de la vérité vous avez accepté d'être aux côtés des démunis Vous avez accepté d'être aux côtés des faibles, mais il faudrait aujourd'hui, en plus de tout cela, que vous puissiez continuer à sensibiliser à travers les couvertures médiatiques, mais surtout les autorités qui ont la charge de la décision finale. ñu xam ne ni que lii du problème parce que ci lu ma wax nii dama ne président ci moom ak la des mën nañ ko woon léegi këyit bu ko neex waa Comico lépp lu ñu namm ci lotissement bi tënk nañ ko ci ci ci ci ci euh, document bi 79 parcelles yi génne nañ leen man nag mënuma sole ci wax ji wante dama ne képp kuy liggéey ci loolu gis nga sa bopp ci daanaka document bi daanaka ñu nga xam ne ni ñoom ñooy def terrassement yi ñu nga xam ne ni ñoom ñooy euh, dignitaires yi ñu fa nekk ñu nga xam ne ni euh, ñoom ñoo fay dugal ndox ñooy dugal courant ak ku munti doon te nga dugal ci sa loxo on t'a pris en compte dans ce lotissement et dans ce morcellement